Euh, comme ni nga ko waxee santaat yàlla la ndax ñaari weer lu nàngam yeneen malade ñoo fi nekkoon ñu leen ñu di leen traité def naa docteur sax am na interview bu mu def keroog leeralal na ko maanaam ndigal la ci jotoon ci ay kilifa moo tax mu jëfe loolu yàlla def na faj nañ leen ci jàmm ak salaam ba yàlla def ci tawféex ba instant bi benn malaat mën nañ ne nekkatul ci centre de santé Darou Manane mais nag jeexul ci Touba mais centre de santé Darou Manane amatul benn malade Covid 19 waaw ci loolu biñ ci amee ndigalu docteur Sylla ñu koy sant ci liggéey bi ak di ko jaajëfal ci taxawaay bu rafet bi mu def durant euh, camp bi yëpp ñu ko ci ñaanal yàlla li mu bëgg moo xam yàlla na ko ci yàlla defal euh, ñoom ci moom ndigalam mu war a ubbiwaat euh, paj mi ci pour askan bi yëpp ci wàllu bépp feebar boo xam ne moom la nit ñi daan am pour di ko soxla ci barabu fajukaay bi ñu am ci ndigalam pour pour nettoyer waat mm, barab bi ba mu yemboo ak ni ko euh, ministère de la santé bëgg ak cet bëgg ko ginnaaw bi fois service d'hygiène jaare pompé ko désinfecté fépp foo xam ne malade nekkoon na fi ak foo xam ne nit ñi doon nañ ko fréquenté ci loolu lañ ñëw nag tey pour waa loolu dañ ci dañ ci santaat yàlla bu baax ndax ñu dañuy jëfandiku dañuy jëfan dañuy jëflante ak nit ñi xamoon nañu ne amoon nañ ay jafe-jafe pour dem ci yeneen barabu fajukaay naam ñoom dañoom dañoo tàmmoon barab bii maanaam ñun ci benn paal dañu am beneen liggéey bu ñu ci yore mu ci wàllu mutuelle de bari ay bénéficiaires yu ñu liggéeyal maanaam ñoom dañoo am jafe-jafe pour dem ci yeneen centre yi maanaam ñu ngi leen fa doon faj mais miinuñu ko fii lañ gënoon a miin moo tax xam naa ne ñoom bi ñu jotee xibaar bi dañ ci waaw moo gën a jege moo gën a accessible ci ñëpp xam naa ñi jor xam waxtaan ñëpp wax lañ ne barab bi dina ubbiwaat lundi premier juin satisfaction bu mag daal lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko jëlee waaw